بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على مولانا رسول الله وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أمة الشيخ احضري لنا في هذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد <clears throat> مبكو groupe soppey Cheikh Ahmad dam ma ngi len di nuyu di ziare ñep di jox nuyu bi président muy Seyda Khadimu ak secrétaire général Cheikh Saloum Dieng ñu nuyul mo mbooleem ko xamne ne ngi ci kër gi sen dar darsu tiné bi ñuy sekk ak yéen nak muy jawaayirul rasail tay ñu wara ñëw ak yéen ci lettre Cheikh Ibrahim الثانية عشرة من الوصايا wasaya muy leetar اك ak ñaar بو ما ma لا نك waaw leetaram mi yëpp ma neex waaye daf ci am yoo xam ne boo bàyyee xel mënoo xam dëgg-dëgg Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu waaye da nga ci jaaree sant yàlla xam ne yow ki nga àndat mooy kii leetar bi Cheikh Ibrahim mi ngi ko bindoon ay shérif ay shurafaaw déglul nag Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu lim digal shurafaaw yi yow nan nga ci gisee sa bopp yow Baay dafa ne alhamdulillahi wahdahu wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne nasihatun li ak laayee biir la goo xam ne lakum wàcceel naa leen ko yaa di jox naa leen ko ñan maachara al awlaadi yéen doom yi min asharafa ci shérif yi alladina nga xam ne naxwa ولا نحو انو نانيو نحو الصوفيتي دنگو كو تي انا مك صوفي وا شرفا ويغا خمنا اي صوفيان كلاج شيخ ابراهيم ميغي وانه ني نيوم نيوم نيب اي دومم لاج لغي نك نيوم لا نيك دي ديغال يغنا اب شريف يغنا ام اب شريف دغ شيخ ابراهيم ياكار كو دنگا شيخ التعليمي فقط mu ñëw bëgg koo jaay ak càng wala mu bëgg koo jaay ak ko wilaaya wala yu ni mel bu ñëwee dafay mujj summeeku nekk ab taalibe moo tax waa ji waxoon ko <coughs> alayya xaqan labasta ayya talbisin a cheikhu tarbiyatin am cheikhu tadrisi ah yaa mën a solu yow alaaji ibrahim yaa mën a solu man xaw ma sëriñëb tarbiya nga wala yow sëriñëb jàngale nga ban nga ci do waaw li ko Cheikh Ibrahim yëpp la dajal lan la Cheikh Ibrahim di leen digal mu ne way yee ndigal la itixaadu mooy jàpp métier leen métier xéyéen surafaaw yi Cheikh Ibrahima Niass mu ne ngeen ut métier kanaa xamoo ne kuy doomi Baay Ñas rek chérif nga doom si xissiyatu wala doom ci maanawiyatu ndax Baay ñaari askanam yëpp boo leen dàqee ci yonent bi la jëm sallallahu alayhi wa dégg nga xaw ma sax naka laay waxee ci yonantu bi la jëm ndax benn askan bi ma ne dereti yonantu bi la waaye beneen askan bi moom mooy yonantu bi sallallahu alayhi kon ko yow chérif nga yow taalibeem bi ak boo ci mën a déggee rek yow taalibe Cheikh Ibrahima bi radiallahu anhu mën ngaa gis ne yow la bàyyi di wax radiallahu anhu bàyyi ne ittixaadu xirfatin jàpp métier ut leen métier li kas bil ngir sàkk lu dagan dañ bàyyi naxante bi Cheikh Ibrahima mu ne ñu ut métier ndax bi muy ebal doomam yi ñuy dem def na leen fexe leen ba bu ngeen ñëwee ngeen nekk njëriñal seen réew di njëriñal Afrique di njëriñal àdduna bi yëpp na ngeen fexe ba am ci yéen ñoo xam ne ay jàngalekat la ñuy do am ci yéen ñoo xam ne ay waarekat la ñuy do am ci yéen ñoo xam ne ay taalifkat la ñuy do am ci yéen ñoo xam ne ay imaam la ñuy do am ci yéen ñoo xam ne daal di lima lima lima lim te loola Cheikh Ibrahima tuddoon ca ñooña doon dem biñ ñëwee loolu am na ci seen biir kon Cheikh Ibrahim lim gëm mooy ndaw loo xam ne danga ngaa ut micc am ko te bañ a nekk di tàllal loxo rek dégg ko di yaakaar ci keneen baay na li kasbil xalaali dégg nga ko waqat taxassubi ak takassubi ak dagg faggu ngeen nekk di faggu bi duuraani ci kër yi kër gu ne ngeen taxaw ne suma addiyaay maam laay laaj dégg nga ko shérif laa baleen ko wax ji sa su ma ko jàngalee sama xal du ñak di dem ci suma baye suma xarit Cheikh abubakar Baye bay MC ibn Mawlana Cheikh ibrahim radiyallahu anhu moom lay faral di deg mu ne sang du laaj daf koy faral di wax mom ci jëmmi bopam dégg nga gëm lool liko yàlla jox to moy nek ciati Cheikh al Islam Alhaji ibrahim Niass Baye mu ne bayle doklen len fagu ngeni fagu bi durani ci soal yi bi sual ci rek wa tam eh, ak xemmem li nga xamni ne ñu ko am seen keri ngeen dugg ci keri xolal waxtu ne de nga waxtu ne lewele nga dajje rek ab nar de nga gas daram rek na la man sherif laa sherif laa jox ma adiya shérif bu el addiye du ko laaj dañ ko da ngay da ngay tok nga xam ne mom la de nga da ngay tok nga xam ne mom la de nga ko nga jël sa de nga ko nga jox ko de nga ko ngir lan mom shérif la motax Cheikh ibrahim Niass radiallahu anhu loolu la leen bëggal manam bay mo dàq jox shérif yi ah lan la ko Muhammad Mustafa Moustapha تراهم يقيمون الزمان بداره آه، دغاي غي شرفاء وي ني انجوي سن تايم كير شيخ ابراهيم رضي الله تعالى عنه ها آه؟ دون فراغال دارا دو قيف دو مر دو لورو دو مبانيل دو دارا هم كون شيخ ابراهيم ميلي لي ديغال لي دا فام لو تخم كو ديغال باين ورفع الهمتي اك يكتي ايتي عن تلك الهرفتي تي ميتي مي غن اداني اتي بدا اجي سوف mécc mu suufe mii ngeen ne baleen ko dégg nga waltakun na nekk jéem mu nekk xirfatukum seen mécc fi Sénégal ci gi tijaaratan business commerce ndax mécc la di aw kitaabatan wala mbind aw taaliman wala jàngale dégg ko wala jàngale aw xamlan walla sax yenu dara ñuy fay la laa sualan wa tamaan déet laaj rek ak xemmem li ci loxol nit ñi loolu na ngeen ko baax ndax loolu du métier cheikh ibrahima radiallahu anhu mooy digle te ay doomam nag lay digal ma ne sikk amut ci ne doom yii muy digal dégg nañ lam koy wax lam leen di wax bàyyi ne waman lam yajid ku amul sabilan yoon ila ahadi tilka al ashgaali jëm ci yenn ci soxla yii kooku kat fal yar dana gërëm bil ci ñàkk wal xanaa ak doylu koo xam ne yi ma tudd nii mënoo ci benn mënoo jàngale mënoo bind mënoo business xoolal Cheikh Ibrahima radiallahu anhu ajam gu njëkk bi dem bi muy jaar phase ki ko dalaloon dégg nga kooku wax na la ne mbokkam benn shérif la woon bu nekkoon marché Kaolack fii daan business ah bi mu demee bi bàyyi demee Maghrib ñoom ñoo ko dalal foofu noonu ay mbokkam ñoo ko dalal teral ko lool macha allah ah, kon ñu mel noonu la Cheikh Ibrahima di wax radiyallahu anhu bàyyi nag ne métier yi ma tudd jàngaleeg business ak mbind ak yu ni mel ku ko ci mën na gërëm ñàkk da doy lu toog ko wa yashtaghil wala nga soxla woo bil ilmi ci xam-xam wa dikri ak tudd yàlla nekkal sa cours bu ijaba amé nit ñi ñaan loolu jox la li nga li nga li xeyo ku la ñaan loolu rek jox la li nga xeyo qala wax na jalla min qa'il magna tuké ci ay waxam nee na lil fuqara yi ñeel na way ñak ña alladina ñaaña uxsiru tënkeef na len jàpp len fi sabilillah ci yoonu yàlla ba nga xamne la yastati'una yastatiuuna mënuñu darban dem dox fil ardi jusuf suuf daf len jortu sax al jahilu aji réer ji agniya ane way homal lañ minat taafufi dégg nga ngir fegu ga fegu nañ ko ñom duñ laaj kenn hittewuñ mbiri ken taarifum dang leen xamme bi simaawum ci seeni xar kanam ci seeni mandarga ndax ñoom laa aluna duñ laaj mukk annas nit ñi ilhafan ben laaj ñom duñ laaj ken dara ben aajo duñ ko laaj nit ñi suratu baqara la aya 273 273 cheikh ibrahim ne wa fi saxiixayni ñëw na ci saxiixayni saxiixu buxaari ak saxiixu muslim la mu ne yonentu ne laa tazaalu du dañ almasalatu laaj bi ahadikum kenn ci yéen xatta yalqa allah taala ba mu dajak yàlla walaysa te fekk na nekkut fi wajhihi ci xarkanam muzaatu laxmin benn suuxu yàpp ndax joxe métti na de waaye laaj moo ko gën a métti laajkat jamono bi muy taxaw di laaj kersa gi mi nekkee ci xar kanamam bi loolu dafay wàcci dafay wàññi suuxu yàppu xar kanamam doomu aadama moo tax mu ne aji laaj ji yoonoon too ko wax de du dañ di laaj ba baa muy dajak yàlla fekk xar kanamam benn suux yàpp desu si ko benn suux yàpp desu Cheikh Ibrahim ne wa sittati ñëw na si ñooñ solokatu xadis ñi nga xam ne ay siqaat lañ ci xadis nga xam ne juróom-benn lañ Cheikh Ibrahima ba mu ko limee ca Kashful Baas ne juróom-benn lañ illa Aba Daawuda Aba Daawuda rek moo àndu moo moo indiwul wax ji moom waaw moom moom andiwul wax ji bokkul ci ñi indi wax ji waaye juróom-benn ya yaani juróom yëpp indi nañ ko bàyyi na li an yaxtaba ngir dem di ahadukum kenn ci yéen xazmatan sayu mat ala zahrihi ko ci kaw gannaawam gi خير له مو گن چي مومن ان يسال احدا چي موي لا كين فيوتي مودكو جخ او يمنعه ولا مودكو خاج دم تاني جاي مو گن خولال دا نا كوي فرال دي نيتي توجور بن كونفرنس لاغو نيتلي ياغول ام كو تودو توري مانا مان خمنا توري واي داو مكو واخ دنگوكو موي كوكو غا خمنه دم ساكيت دم جاي كو لوم چي ام نيو ديبانسو كو لا دون ديف ولا يوني مل ba bis Mawlaana Cheikh Ibrahima ñëw seet si ko keroog boo ko baay seet see keroog laa maalal ko muy borom Batamar dégg nga kooku day lii Cheikh Ibrahima di digle moom loola ci la nekkoon. baay ne dem taani xenu ko sa kaw gannaaw gi dégg nga ko jaay am dara moo gën ngay laaj ñu jox la wala ñu ñàkk laa jox. mu ne waaye wali abi daawuda wa nisaa yi ñëw na ñeel abi daawuda mi waxut ci wax ji ak nisaa yi. ne man takaffala lii képp koo xam ne garantil na ma ne an laa yasala naasa shay'an ne du du du du laaj nit ñi dara atakaffalu lahul janna man ma garantil ko aljanna waaw ma garantil ko aljanna gara takaffal mooy mooy doylu waaw ku ma wan ma doylu na ba du laaj nit ñi ma doylul ko aljanna man ma ma garantil ko وللنساء ينون يدني النساء صح حديث بوقمنا نمن سأل كلاج وله تنيال نقومي لاج أربعون درهما ينفك درهم فهو ملهف كوكو دفا بقه آه، دفا بقه كب دفا أبل إلى غير ذلك بچه يدو يلي من الأحاديث جاء حديث باي تكتنه والله يالله هو الرزاق مو يرسل ذو القوة مو يبرم كتن المتين dada aji dëgër lool kon nañ dayloo yàlla nañu dayloo yàlla li ñu war a xam duñ taxaw di ko laaj danañ ñu ko jox Cheikh Ibrahima lool la bëgg nañ ut ñu nekk si waaw ñu jàpp ci Cheikh Ibrahima lii la bëgg bàyyi ne nag man de faqat nasaxtukum lillaahi dama leen laay biir ngeen yàlla rek waaw yàlla rek moo tax ma laayee leen biir ku d'accord baax na ku d'accordul baax na wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu fii la leetar bi am bàyyi na wakkatu wakkata ba axukum bind na ko nag seen mbokk wa muhibbukum ak seen soppe bi man daal Cheikh Ibrahima baat boobu daal dana may def dara de bàyyi na mu bind ba pare ne ki ko bind nag mooy seen soppe bi leen bëgg man daal baat bi dana may def dara ko kan la Ibrahim ibn alhaaji Abdullahi Atijaani ñun ñoo war a di di yéebaane ca kaw di wax ne dañoo bëgg bàyyi di ko noddu ci jàkkee jumaa yi ci conference yeeg daayira yeeg gàmm yi ñun ñoo ko war di def waaye Cheikh Ibrahima téeram yëpp waxtu wu ne mi ngi ciy bind ne dañ koo bëgg dañ am kersa ngir yàlla lim ñuy digal ñu def ko wala ñu jéem bokk ah ibrahim ibn alhaaji abdallahi attijaani awaayilu shawal am 1356 hijri yàlla tafallahu bi amin yal na yàlla may ñu dégg ak topp lu ci leer ngeen xam ne ci baay mi waxee ci làmmañ yi la di jiitu ci nopp yi di dégg lu ci lëndëm ñi doon jéem a xent ak jottali la te amuñ xam-xam mënuñoo jottali إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله سنبوك أحمد دام نيانغ لسنة غامبيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته